macha allah comme ni ma leen ko waxee rek ba tey maa ngi mbàkk boole génn gu ma ba tey macha allah ñu ñëw toog suñu jigéen bu ñaawal bi macha allah muy def ci li nga xam ne moo nekk maanaam stylis muy ñaw ah, soxna si nuyu naa la. nuyu naa la. yaa ngi am jàmm. maa ngi am jàmm baax. waa tey waa El Vision ñëwoon seesi la macha allah nga nekk ndaw di def li nga xam ne mooy euh, ñaw ngay ànd ak ay xale maanaam nga nekk xale euh, am ñoo xam ne ñu bëri da ngeen a uuf sa sa sa kaw tey am na lan ngay sentir ci loolu. waaw loolu moom su ma sant sama ñaari waajur ba pare maa ngi sant sama borom kër comme saa ñaw bi nu ma ci duggee yooyu waaw man nag centre laa njëkk a nekk maa ngi njëkk a nekk sant social bi ma génnee nekkaat naa ci Youssou Thiam ku ñuy wax Youssou Thiam léegi mu ngi mane macha allah yow li nga comme daal euh, su ma déggee say biir wax li ngay ñaw maanaam foo kii woo ko da koo jàng piir waa dama koo jàng piir ba am diplôme am diplôme bàyyi nee waaw kon euh, yéen El Vision Médias macha allah yéen ko déggandoo xale bi jëlul ci so rek maanaam di dagg lu ko neex da koo jàng ba am li nga xam ne mooy maanaam muy diplôme euh, nan ngay sant si ñaw yi nga xam ne yaa ngi koy ñaw di boobu ba tey. waa kontaan ci nag parce que kontaan sama client itam ndax mosuma leen a ñawal loo xam ne neexu leen lu ma leen ñawal lu nekk rek da leen di neex loolu rek euh, lan ngay santi tamit nga nekk xale maanaam am ñoo xam ne dañoo bootu sa ginnaaw. waa loolu dama ci kontaan itam. parce que bamay jang dañ ma botol kon suma démé ba mokal tam dama wara dimbalé dimbale ñeneen boot ñeneen su ma doon laaj sa model yi machallah yi nga xamné wék nga ko fi rafet na trop comme suma ma doon laaj su rouge bee né tay ah, lan nga ma ci wax wa robe rouge bee mom mën na dem fep mën na dem soirée mën na dem ci minier bu nek til lañu bolé ko ak til til unique bi la ñu bolé ko ak ss bi tek ci garniture yi dafa simple mën naa dem fu ne te neex na ci tàngaay bi bi si topp nag muy rose bi defe naa bi ci topp moom kii la coton la borode coton la mën naa taaj añ neex na ci tàngaay du la sonal fenn vax bi nag kon loo ma ciy wax vax rouge bi vax bi moom pour jigéen ñi la mën naa dem marché mën naa togg añ tay baas la ak jip da ngay tagalu rek daal di dem lan nga may wax bii nii si bii moom jekk na macha allah waaye bii moom jekk na pour ñi ngénte wala ñi céetal pour xew la tay baas la noo ko ñawee nu ma ko ñawee tay bi tay ak jup am li am til ak garniture sañse na daal sumo koraay la mm-hmm. euh, tey boo mën a wax si ñuul bi ñuul bi dafa mel ni danga ko defee panace euh, euh, dafa mel ni dafa am la ko jaxase muy mbasin xaw ma waaw mbasin la ak til ba tey am garniture bu doore moom boo xeesee boo ko solee da dem couleur bu neex la yére bu neex a sol la du la sonal ci tàngaay ndax gis nga kaw gi. dafa mel ni tamit ba tey euh, dama fee gis vert noir. waaw vert noir couleur bu fës la ñu def ko vert noir moo tax ñu def ko vert noir tey baas la ba tey moom itam mën nga kaa sol tàngaay mën nga kaa sol seddaay. Euh, tey su tey tey dafa mel ni maanaam kon euh, da ngay def li nga xam ne mooy ñaw góor wala si ñaw jigéen ñi rek nga yem. waaw dañuy ñaw yére góor yére góor yaay nii. हमको एक्सक्यूज कीजिए soo bëggee yére góor ñi ñawal la boo bëggee yére jigéen ñi ñawal la maanaam yow daal ñaw rek ñaw jigéen da nyawa ñawaale tamit ñaw góor ñi waaw dama ñaw di ñaw ñaw góor am na pere apport am na yëpp lépp daal da nga koy def waaw loo soxla rek ñu defal la ko ku bëgg a jokkoo ak yow nu muy def boo boo liyee boo 686 85 20 Tigo bi 872 33 71 Facebook bi des page Facebook bo defé aw ñi ngi ñaay jaay ko couture ñu gis li nga gis fofu suñu model lan ngay tàggatoog sa client yi wa sama client yi maa ngi leen di sant di leen gërëm parce que jappalé nañ ma bu baaxa baax duma ci ñawal kenn mu ne li ma ko ñawal neexul yàlla dogal na kuma ñawal ku nekk rek dañ ci contane Eh, lan ngay wax ci dàmbaal eh, dàmbaay xale mi nga xam ne day sargal ak jigéen ñi le 8 mars waaw su ma paree su sama xale yi ba pare ñi ma nekkal maa ngi leen di sant góor ñi jigéen ñi ñëpp maa ngi leen di sant waaw dàmbaay moom ku baax la ñi lii ba 8 mars rek ñu fas yéenee jàkkaaroog moom defanteeg moom yu baax yomb daal da nga am ay ñaareel ngeen nee ngeen da ngeen koo ñeme ñaareel yi rek ah doyut bay des yomb inshallah yone yéen a ko gisandoo ndagam bu waxtaan ak soxna su baax si bu mu wax mo li nga xamne mo tamit mom lay yëngu ci walum ah, ñaaw mi Batay neena duma naa du ma bàyyi benn yoon mo dugg ci bi nak fekk fi ay xalé jigen ay xalé jigen yu mon goor ha ah, mo fekk la ñu ñaw neena ndekete ñaw du goor rek mo xale ndax jigen ñi tamit lu ñuy rek ëpp na ci kër aduna ha ah. bëgg naa tamit nga wax ma ki ni tamit lu muy ñaw ni la la. waaye ki li lay ñaw robe lay ñaw palman la ak xaatu mu waax ñaar la boole maro orange moy soda robe bi la jaxase ak lan. orange la palmaan la boole ak couleur orange mooy couleur palmaan bi nii ñaar yi la boole robe la koy def mooy sooda. maanaam yéen a génne couleur yi. waa ñoo génne couleur yi nii. Euh, damay laaj comme idée yi nan lay ñëwee si yow client yi na ñooy ñëw ne la euh, ñawal ma li wala jaxaseel ma lii wala yow yaay jékki-jékki rek idée yi di ñëw sa bopp waaw maa xool rek ñoom ñooy xool lu rafet rek xam nga nit boo ko defalee lu rafet lu sedd xolam bu ëllëgee bu ñëwee bu kiyee naan la xoolama lu rafet rek dañu ñëw rek ne la xoolama lu rafet wala ñu ne la maa bëgg boole couleur bii nga wax leen ànd waaye parfois dina metti ci yow waa parfois métti ci man trop nag nan ngay dundee say client yi nga xam ne say client waaw sama client moom yàlla dogal na dañoo déggoo lu ma leen defal lu nekk rek doy na leen. kon nañ daal doxantu rek ñu xool tamit ah ba pare dafa mel ni sa emprunté yi ah dafa mel ni jigéen ñoo ëpp góor ñi ah. am nay góor am nay jigéen. waaye jigéen ñoo ëpp de dafa mel ni. da ngaa solidarité. waaw gis nga. <laughs> macha allah kon nañ daal doxantu rek xool ci biir xool góor rek xale jigéen niñ toogee. kii bëgg naa xam lan lay def nii. waa kii moom moo nekk ci wàllum 217 bi mooy dawal. 217 bi mooy lan. mooy comme yi ngeen fekk de buntu ba bii moo koy ñaw mauve zone bi bii moo koy ñaw noir zone bi bii moo koy ñaw. mooy daal dundee say emprunté. samay emprunté moom déggoo na déggoo nañ ak man vraiment yaru nañ neex nañoo yor tukki moom boo koy jàngal métier mu déggal la rek jàmbaar rek. lan ngay tëj ak émission bi. émission bi ni ma koy tëjee maa ngi gërëm samay client di gërëm ñu jàpp ci atelier bi ñëpp sama client yëpp maa ngi leen di gërëm ak élèves yi góor ñi ak jigéen ñi yëpp maa ngi leen di gërëm. Ah, maa ngi lay fay baax a baax. Euh, ñu ngi la fekk fii ngay ñëw. waaw waaw fii laay liggéey. lan ngay dundee ak ñëw sa patron. waaw ah, sama yàlla ku baax la ndaxte jàppale nañu bu baax a baax a ah, bu ñu fi ñëwee tey ay rakam dañu defal lépp wax dëgg yàlla ku baax la ku neex àndal wax dëgg yàlla. moom neex na. waaw neex na wax dëgg yàlla am dafa ku baax la wax deug yalla chaque jour dañuy jàppale chaque jour luñu neex rek lay def wax deug yalla on ngi soo amoon loo koy wax lo koy wax. wa duma def daal lu may di sant bu baax baax baax diko ko gërëm wax yalla nak te ku baax la dal para wax deug yalla ku baax a baax. fay la. ñu ñëw fekk la fi anda ku jigen ngay ñew nak ngay dundé euh, ñaw bi. wa ñëw mom ni ko dundé dem mom lén rek la. neex na moom. Ah. wa mën ngay dundé sa patron. Ah, sama patron mom baax la def bëgg apprendre moom boo ko fekkee ak apprenti am da nga yaakaar moom ci apprenti yi la bokk dafa wàcce boppam ba maasee ñun baax lépp lu lu nit ki def ak apprenti rek mi koy def moom daal baax daal la def xam naa moom. ñu koy loo koy wax. di ko ñaanal rek dama koy ñaanal rek man gudd fan ak wér laa koy ñaanal yàlla yokk liggéey bi waaw mënul wax moo tax.